al mutaabaata li nabi sallallahu alayhi wa sallam wala bu leneen da nga ne kayfa nujaridu al mutaabaata li nabi sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy jaar ba mën a roy yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci diine ci lépp loo xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam daan def te loolu mooy li nga xam ne moom la ñu suñu borom subhanahu wa taala digal mbokk yi xam ngeen ne topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak roy ko mbir la moo xam ne sharia daf ko digle mën nañ ne sax ci ponki sharia yi mag yi ci la bokk bokk na ci mbir yi nga xam ne tam kenn war a ci sikk sàkk ci ne dafa war a jurit bu nekk wa illa boo gëmul loolu dañ la li lay laaj mooy kon lu fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon jëriñ yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla yónni mu indi diine jàngale diine ñëpp war koo roy kon kuy royee diine mënoo koo roy ci ku gën a mën yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba waroo koo royee ci ku dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam te loolu tam mooy li nga xam ne mooy ci alquran karim yàlla nee na wa ma aatakum rasulu fa xudur wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam andi ci diine na ngeen ko jël lu mu leen teree tam ci diine loolu bàyyi wax ne wa man yuti'i rasula faqad ataa allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alayhim képp ku topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp nga yàlla waaye képp ku dëdd loolu nag yàlla subhanahu wa taala dañ na ci yow te du la wax wax itam ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axir wa dakara allaha kasira am ngeen ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam royukaay bu rafet bu fekkee yaakaar ngeen yàlla yaakaar bi su ko ci kon nag ñu boole ci yàlla kon mbokk yi loolu mbir la moo xam ne jullit bu nekk war na koo xam mooy war buñ war a roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam war buñ ko war a topp ci lépp loo xam ne suñu mbirum diine waaye mbir moom li muy leer lépp li muy leer lépp teewul seytaane am ay jaarawaay yi jaar ak lenn ci jaar yàlla yi ba lëndëmal ci ñoom bunt bu leer boobu ñu jot nit ki mën naa egg ci boromam mën naa am ngërëmul boromam mën naa am bëggeelu boromam jaare ko feneen fu dul roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay kuréel yu bëree bëree bëri réer ci bunti boobu moo tax bunti bi am solo ak di ko waxtaane ci waxtu wu nekk al-ittibaa muy topp yonent bi alayhi salaatu wax ci làkk arab mën nañ ne mooy mën nañ ko firee al-lihaa ak at al-ittiba al-iktifa al-iqtidaa maanaam daal roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam toppaloo ko te nam daan defe loolu la baat bi di teg ci arab waaye bu fekkee dañoo bëgg a xam ni ñuy firi li ñu koy définir nag ci ndam gën a yaatoo wala li ci sharia jublu mooy al iqtidaa wa taassi bi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi l ictiqadat wal aqwal wal afaal wal turuq bi amalin misli amalihi ala al wajhi alladi amilahu min ijabin aw nadbin أو إباحة أو كراهة أو حظر مع توفر القصد والإرادة في ذلك topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam liñ ci jublu li ci sharia jublu mooy ñu roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lam daan fas ñu fas lu mel noonu lim daan wax jublu ci diine ñu wax ñu waxee lu mel noonu lim daan jëf tam nekk diine tam ñu jëfe lu mel noonu ak lu mel noonu defe ko comme na mu ko defee woon alayhi salaatu wasalaam ca anam ga mu ko defee woon moo xam anamu farata la ko defee wala lu mu sopp wala lu mu daganal wala loo xam ne sax lu war a bàyyi rek te nekk lu mu sib wala mu nekk loo xam ne dafa war a araam boole koog nag yéene ne lii kat bi ma koy def roy yóbbu ci bi alayhi salaatu wasalaam bu ma ci dugal waaye du tombe rek kon même bu taabaa muy roy ci bi alayhi salaatu wasalaam dafa aajowoo yéene kon mën na noo gis ne topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam Ah, dana nekk ci mbir yi bi ci njëkk mooy dana nekk roy dana mënees naa roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu waxee roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci pas nag mooy jaam bi fas kem li yonent bi alayhi salaatu wasalaam fasoon xam nga baatu pas-pas bu ñu ko waxee bu yaatu la waaye li ci ëpp ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam fase ni ko doon jàngale gëm itam mbooleem li nga xam ne moo aju ci suñu borom subhanahu wa taala ci turam yu màgg yi melokaan yu li nga xam ne moom lañ ko war a jaamoo bañ ko bokkaale kenn gëm itam ne moom moom lépp muy tawhid rububiyya ak tawhid uluhiyya ak tawhid asmaa wa sifaat kon ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale kon foofu bokk na ci béréb yi nga xam ne ci roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ki noonu danoon nga roy yonent bi ay waxam loolu nag buñ ko waxee liñ ci tekkiwul ne euh, dañuy roy dañuy topp ci xadis yi waxoon ñu koy répété loolu nekk ak roy ci waxam li ci jublu mooy li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, euh, daan wax ñuy jëfe la nga xam ne moom lañ ci dégg bi maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam a wax naan sallu kamaa ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee may julli kon nay nan roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam di julli comme na mu na mu doon julli ni ko doon tam bu fekkee yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa digle ne bu ñu def di ko sàngam ak di ko sàngam bu ko melokaanoo ñu fexe ba bàyyi yonent bi alayhi salaatu wa salaam am na ci benn hadis ne laa taxaasadu wala tanaajashu bu leen ñaan leen ngeen di ñaanante bu leen jëfandikoo tam li ñuy wax najas ci seen diggante najas mooy nit kuy jaay ak marchandise dëppoo keneen koo xam ne day ñëw di yëkkati ci marchandise bi ca fas yéene wut a jënd waaye li jublu ci yëkkati marchandise bi mooy dugal beneen mbokkam mbokkum jullitam moo xam ne moom xëy ne bëgg na marchandise bi te xamul ne xamul li ñu jar nga kii di ko yëkkatil marchandise bi di ko rafetal ba mu jënd ko loo xam ne du piré loolu moom dañuy wax najas loolu dafa xaraam ñu ne Nabi alayhi salaatu wa salaam da ko terewoon kon ñëpp di waxee loolu. ni koy royee mooy bàyyi loolee nga xam ne moom la tere ci xadis dana roy yonent bi alayhi salaatu wasallam ci toppandoo ay jëfan ak di def comme naan defe ak nam ko doon defe ak anam ga nga xam ne noonu ko doon defe ci misaal rek bu fekkoon dana bëggoon roy yonent bi alayhi salaatu wasallam ci kooram yonent bi boo ko bëggee roy ci kooram il faut nga woor comme nam doon woore moom yonent bi salaatu wasallam te loolu mooy nga bàyyi mboolem yi nga xam ne moom la bàyyi ci koor muy lekk ak naan ak bànneex ak lépp lu aju ci ñaar ñetti mbir yooyu ci bi jant bi fajar bi jot ba keroog jant bi di soxla jublu ci topp yàlla subhanahu wa waaye bu fekkoon nit ki dafa woor lekkul naanul deful loo xam ne tam lu aju ci bànneexam la maanaam li nga xam ne moom lañ koy tere ci côté bànneex muy ànd ak. soxnaam bu fekkee bàyyi woon na loolu waaye xaarul ba jant bi sox bu boobaa danaa mooy yooyu di benn nit ki noonu bu fekkee dafa def comme li ba yeneen kuréel yi def defee nga xam bi sooy tam kenn warut a dog li feeg bi diw yi feeñul boobaa ba tey wute naa ko ba yéen ci benn islam bëgg a roy te dem doon woore da da ngay dox waxtu woon bañ doge jàpp tam waxtu woon a ngi élevage jàpp boobu yéene léeg-léeg xañ na nit ki mën naa fanaane koor euh, biddanti comme ni ñu koy waxee xëy kooram waaye bi muy tëdd fekk na mu yéene ko bëggoon naa xañ na xadd waaye yàlla may ko xadd ndax xañ na dafa ay nelaw def na ko waaye moom bu yéene na ne bu fekkoon yow woon ci lekk te dafa ni ki noonu tam waxtu dog mën naa jot te amul lu mu dogee bu boobaa li ko war mooy yéene ne dog na même bu amul lu lekk amul lu mu ba keroog loolu di ko yomb waaye nag bu fekkee waxtu dëgg dafa jot nga gëm ne yow dëggagoo ca am mën a am loo a naan ngir leneen foo ngir feneen foo ko teg bu boobaa boo tegaat doo yem kon bu ko bëgg a roy ci jaamu yàlla bu mën di doon moo xam ci koor la ci julli la moo xam ci joxe asaka la moo xam ci aj màkka la moo xam a defee yëpp da ngaa a defee da nga ne moom lay topp yonent bi yàlla muy tudd yàlla lu yàlla subhanahu wa taala digle ci alquran yonent bi alayhi salaatu wa salaam digle ci ay xadisam borom xam-xam yi sax ne leen amul genn jaamu yàlla booy fekk ci alquran suñu borom di ci digle ñu bëri ko di ko def te bëri ko lu dul zikr yaa ayyuha alladina amanu uzkuru llaha dikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila waxta wa zakirina allaha kasiran wa zakira wadkuru llaha kasiran laallakum tuflihun kon fu mu diglee zikr rek mu tudd yàlla da ciy teg bëri waaye bëri googu tam bala ñu koo xam nu mu koy defee da nga war a roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ay doog yu mu waaye bi ci gën a rëy téeméer la boo xasee parce que egg téeméer ca bëgg a def lu ko jël lu ngay wàññi ndax boo wàññee utal ko ak lim boole ci teg ci nag euh, euh, maanaam ngëneel wala ab yoon rek bu boobaa yaa ngi dugg ci buntu bi daal te yaa ngi wuteeg li nga xam ne loolu yonent bi alayhi kon mbokk noonu lañ war a royee yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu tam lañ ko war a royee ci bàyyi ndax léegi léeg topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana nekk bàyyi ay mbir yoo xam ne ci misaal yonent bi alayhi salaatu dafa tere woon ñuy julli waxtu wi jant bi di fenk kon nit bu fekkoon dafa def jàkk ji boobu jant bi fenk rek mu daal di bëgg a julli bu boobaa mbir yi wuuteeg yonent bi alayhi wa salaam li war foofu mooy mu bàyyi bañ a julli ba jant bi jëf lu tolloog ah, xeeñ maanaam lu tolloog 15 minutes fukki minutes ak juróom nga defee bu boobaa mu doon julli waaye bu jullee ci waxtu nga xam ne ci la jant bi di sow wala mu julli ci waxtu nga xam ne ci la jant bi fekk bu boobaa wuute nag li nga xam ne mooy sunu sëriñ bi alayhi salaatu wa salaam te loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam donc la muy def sax lu baax la maanaam bi alayhi salaatu wasalaam mooy la nit eh, ko imam Malik tontu woon rek di ñëw ne dama bëgg a armal ci jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo leen sama armal armale fi eh, Malik ne ko sunna de mooy nga bañ a armale fii waaye nga dem ba zul xalefa nga yéenee fi mu ne ko lan moo nekk ci yéenee sa aj ci jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax am na lu ko gën a rëy Eh, waaye waaye lan la ko Malick doon Malick def ne ko mbir mi nekkul foofu de waaye bàyyi gi nga bàyyi sunna loolu mooy lu rëy mooy li nga xam ne moo tax ma la koy tere ne kenn waxul ne jàkk yëpp bi alayhi salaatu salaam màggul kenn waxul kenn waxul naa tam ne lu mu war a respecté waaye nag bàyyi gi nga bàyyi sunna foofu lañ koy mën a kon mbokk yi sunna noonu la ko jullit war a foofee moo xam lu mu war a roy yoon bi alayhi salaatu salaam ci def la wala ñu war a roy ñu war ko a Euh, euh, topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, ci jaamu yàlla yi nekk na mbir moo xam ne kenn du ko aj ci palaas wala ci makaan lu dul bu fekkee dafa ay texte yu ñëw aj ci palaas boobu wala ci makaan boobu pour ñu leeral loolu xam ngeen ne julli yor yor wala julli guddi naafila guddi wala sax julli juróom ci melokaan yi nga xam ne na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale wala koor loolu jullit bu nekk la war jullit bu nekk tam moo ko mën a def ak fu mën di doon ci àdduna si ak fu mën nekk waaye am na jaamu yàlla yoo xam ne nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo def ci ay béréb ba noppi jagleel ko béréb yooyu bu boobaa dañ caa war a roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ koo wuteeg bañ caa wuteeg moom ñu joxe ci rek misaal ci xawaaf jaamu yàlla nga ne wër ak jaamu yàlla boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ko waaye nag def ko ci lu dul kaaba kon bu fekkee ab jullit daf na dafa dafa wax ne damaa bëgg a yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tawaaf daal di dem ci tawaaf bàmmeel wala jàkka wala bant wala garab wala lu mën di doon bu boobaa bu fekkee daf ko tudde jaamu yàlla loolu jaamu yàlla waaye ci mën naa sax raw na kon bu fekkee jaamu yàlla gi dañ ko dënk ci euh, place kenn sañu ko def ci dul place dafa li ki doon tam bu fekkee jaamu yàlla boo xam dañ ko dënk ci waxtu kenn waru ko def ci euh, waxtu gis woowu lu mel ne ak ak màgg am na yoo xam ne ci lañ ko bu nit ki demoon màgg ci waxtu waxtu dul loolu sañul ne man kat ne am naa occasion ñoom umra xaaral ma defaale li aj li aj li aj bu boobaa bu demee taxaw Arafat dem Muzdalifa dem Mina lu mën a def tam du ko jël ndaxte waxtu ba nga xam ne ci la koy Yonent bi alayhi salaatu salaam tënkoon doo ko kon mbokk yi gis ngeen topp Yonent bi alayhi salaatu salaam ni amee solo noonu muy leere ci yenn yi nag noonu la war a leere ci yëpp xam nga loolu moom fi ko ko wax moom mu gëm ko koo ne ku dem ci weeru rajab boo boo ajee sa ak màkk wérul ndaxte li jël Yonent bi alayhi salaatu salaam ku woor weeru koor ci lu dul shahru ramadan sa koor wérul ndaxte royee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam noonu lañ war a wér noonu lañ war a war a gën itam lépp loo xam ne nit ñi koy def te royee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam parce que moom mi nga xam ne mooy euh, ak exemple bu mag comme nga xam ne nit kee itam bu fekkoon dafa ñëw julli euh, julli euh, fajar ñeenti rakka bu boobaa buñ ne ko royee yonente bi alayhi salaatu wasalaam li nga def wérul bu boobaa da ci am sikk sàkk fekkee ab jullit la kon nañ ko nam la leere ci yok ay rakka wala wàññi ay rakka noonu la noonu la la waroon leere tam ci bépp mbir boo xam ne dañ ca war a roy yonent bi alayhi wasalaatu wasalaam euh, ñu ci euh, beneen tomb bi nga xam ne moo ci des muy jëf yi nga xam ne mooy jëf yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak naka la ko ci royee ak nabi sallallahu alayhi wasallam muy jëf yonent bi alayhi salaatu wax nañ ne euh, amalu nabi sallallahu alayhi wa sallam bi jëf yonent bi alayhi salaatu wa salaam mën nañu koo xaaj ñetti xaaj yu mag xaaj bi njëkk bi mooy li ñuy tuddee al afaan al jibiliya muy jëf yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa daan def ci ak doomu aadama maanaam ci ne loolu moo dëppoog moom moo dëppoog tam ak bëgg-bëggam ak xemelteefam en tant que doomu aadama waaye nekkul loo xam ne nag sharia la koo xam ne xëy na bu ñëw la maanaam en tant que doomu aadama nii la daan defee. loolu mooy xaaj bu njëkk bi ñaareelu xaaj bi mooy xasa al afaal al xaasatu bi nabi sallallahu alayhi wa sallam wala maa yusamma bil xasaais bi xasaais nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëf yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko daan def moo xam lu war la ci moom wala lu araam la ci moom wala lu dagal la ci moom te yàlla jagleel ko moom kese bokkoo aw xeetam attale yoo xam ne ñu ko yàlla subhanahu wa taala jagleel la loola tam am xaaj la ñetteelu xaaj bi nag mooy al afaal al taabudiyya mooy yi xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko daan def ndax yàlla moo ne ko defal lii ak jaamu yàlla ñu war ko caaroy kon ñetti xaaj yooyu moom la ñu xaaj eh, def yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ay yëngatoom xaaj muy li nga xam li ñu tuddee al af'aalu jibiliya muy jëf yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko daan def ca li tax mu ko daan def mooy nekk doomu aadama te képp kuy doomu aadama ak am defee noonu man naa man ñu ne mënoon wute ci ni mu koy defee kenn ku nekk nam la gën a juboo loolu borom xam-xam yi nag dañ ko séddale ñaari xaaj loolu buñ ci joxe bëggoon joxe misaal mooy comme ni mu daan taxawee ni mu daan doote ni mu daan doxee ni mu daan solo ni mu daan euh, toilettoo ak yu demee ni ki noonu ni mu daan organisé nelawam ni mu daan organisé mbiri boppam mbiru biir këram yooyu ay mbir la xam ne nit ku nekk na na muy defee yàlla subhanahu wa taala nit wutale nit ñi ci ay jëm noonu la leen wutalee tam ci ay bëgg-bëgg ay def yi nag ay ay ci kàttanam keneen xareem subhanahu wa taala loolu lépp day wane xareem suñu borom subhanahu wa taala léegi jëf yooyu nag borom xam-xam yi dana wax ne ñaari xaaj la mi ñu ànd fànn bi li yëngu nekk bu nekk doomu aadama nee nañ ñaari xaaj la am xaaj bi mooy jëf yi nga xam ne da ko daan def ba nag texte àndaale ci ci nan nan defee nii lu mel ne lekk moom doomu aadama koy def waaye texte defi ñëw maanaam ak nusuus yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw ni lekkee leen day jox dig la ñu lekk day jox kon loolu euh, day daal di am ba day àtte donte fi'l jibril la waaye charte da cee maanaam euh, sharia da cee àtte nit ki doon tam naan ñetti yoon ba noppi booy naan itam nga toog loolu itam ci af'aal jibril la waaye ay texte da cee ñëw nit ki nelaw ci wetum day jot loolu nit ku nekk nelaw. waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu daan nelawee ci wetu ndeyjoor ba tey dafa am ngëneel yu ci tudd ak ay xadis yu ci ñëw kon bu fekkee yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am jëf yoo xam ne doomu aadama bi nekk da koy def waaye nag mu jël ay wax toftal ca yuy wane ne li ko war a roy bu boobaa day daal di ci nekk jëf yi doomu aadama kese waaye tuxu nag jëf joo xam ne dañ cee war a roy yonent bi alayhi salaatu salaam ku ko ci roy am tiyaaba ku ko ñàkk. am tiyaaba wala sax mën nga cee xëy daal loolu mooy xaaj bu njëkk bi beneen xaaj bi ci al afaalu jibriliya mooy yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko daan def waaye nag amul texte bu ñëw bu ñuy wax ne lii dañ ko cee war a roy bu boobaa nag borom xam-xam dañuy wax ne loolu yabqa ala al asl min xaysu al ibaaha lil jamii na nga yonent bi def dafa moom dagan na waaye nag duñ mën a wax ne sunna la def ko sunna la donte loolu tam mënees na ci euh, borom xam-xam wute nañ ci am na ñu ne war nañ cee roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam te boo ko defee dañuy am tiyaaba loolu moo nekkoon xalaat Ibnu Umar radiyallahu anhu moo tax moom da daan wër béréb bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan jaar di julli mu dem di fa jaar di fa julli daan tukki sax ba romb foo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mas a euh, dafa mas a toll toll soxla boppam maanaam dem gaanuwaay day taxaw dem gaanuwaay foofu doo ko egg waaye loolu bisinam euh, la woon moom ak leen ci ay saxaaba yu néew waaye li nga xam ne mooy ñaareelu bisin bi te mooy waxu yëpp ci saxaaba yi mooy ne foofu moom jërul roy ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam parce que loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko def rek ci nekk bu nekk doomu aadama bu romb fenn soxla boppam dem def ko loolu wax dëgg yàlla euh, mën naa ko mën a bi loo xam ne ñu ngi koy royee loolu tam mën nañ ci dugal euh, bunt bii di buntu ni yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daan euh, defaroo daan tuwaaletoo kon ñu daan sole kaala ñu daan euh, sole kaala bu daan defaroo aleyhi salaatu wa salaam ñu daan dundale karawoon aleyhi salaatu wa salaam ak euh, façon yére yi daan solo couleur yi daan ci tànn ak lekk yi daan lekk daan lekk du baax bu dee yàpp mu fecc bi gën a góor ak yeneen ak yeneen ñu demee nekk noonu yooyu yëpp dañ ko ci bunt bi ndax dama cee war a roy wala déet li gën a wér mooy ne yooyu bunt boo xam ne bu ñuy roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ndax ñu amul ay textes yi ci ñëw dinañ ko ci roy kon loolu day des rek nekk ci alal ibaada waaye nag yenn borom xam-xam yi ne bu fekkee nit dafa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba bëgg nuróo moom ci lépp nga xam ne bu koy def yéene boobu moo moo ko ci dugal bu boobaa mën naa am tiyaaba ci yéen dem bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bëgg nuróo moom mën na caa am tiyaaba waaye nag kenn waru cee euh, maanaam imposé nit ñi ne dañu see war a roy ca melokaan yi ndaxte bu fekkoon lu war a roy la kon dana ci wax wax ñu wane ne dañ war a roy comme nam def ca ba muy yàgg ndeyjoor joxe ci ay tegtal wala ba muy naan nekk yoon wala ba muy tëddee wax ndeyjooram wala yu demee ni doon nga xam ne cee indi ay wax yu bopp alayhi salaatu wasalaam kon loolu mooy xaaj bi bi di al af'aal jibiliyya muy yi nga xam ne moom la ñu tubi alayhi salaatu wasalaam daan def ca nekk bu nekk doomu aadama tax ñu ko daan def xaaj yooyu la atte yooyu jëf ñaareel bi mooy jëf yi nga xam ne ay xasaay sam la maanaam yàlla def ko jagleel yooyu moom boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne kenn waru cee roy yonent bi alayhi yooyu am na ci yoo xam ne ñu ko yàlla daganal la ba noppi araamal ko ci aw xeetam lu ma ne takk lu ëpp ñeenti soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy génnaat nañu bàyyi juróom ñeenti soxna te loolu lu ko yàlla subhanahu wa taala jagleel la waaye aw xeetam li wér ci taxi yi li wér ci alxuraan karim mooy waruñoo passé ñeenti sax kon loolu ko yàlla subhanahu wa taala jagleel la loo xam ne moom rek ci moom la dagal kenn kuñ kenn sañu ko cee roy ku ko ci roy yaa ngi def bàkkaar ñaareel bi mooy takk soxna ca doo joxe kenn loolu daga noonu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye daga noonu ci aw xeetam nit ki noonu tam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangu woon na wala daga noonu ci moom jigéen ñoo ko ñëw may ko boppam ci lu ci lu dul wali ci lu dul loolu ba tey lu ko yàlla jégleen la woon waaye dëgganul ci keneen ku dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ni nga xam ne am na mbir yu waroon ci moom yoo xam ne warul nekkul farata ci ci aw xeetam doonte bu ko defee mën nañ ci am tiyaaba lu mel ne ak tahajjud muy julli guddi loolu farata la woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sañu ko woonu ñàkk def nit ki noonu xiyaamu euh, leel ak euh, yeneen yoo xam ne borom xam-xam yi tudd nañ am na yoo xam ne itam dafa araamoon ci moom moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi yàlla daganal ko ci aw xeetam lu mel ne lekk sarax lekk sarax dagan na ci koo xam ne aajowam ko même boo bokkee ci xeetu ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ki noonu lekk laaj ak euh, soble loolu li ci nekk ci euh, maanaam xeet bu naqari moo taxoon mu araam ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye dagan na ci aw xeetam kon yooyu ay mbir la yoo xam ne moom la borom xam-xam ci di xasaa si nabi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ci daal di téere al imam Tirmisi taalif na ci téere ak yeneen xam-xam xam ne dañ cee tudd li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu euh, loolu sax day law ba ci xam ne moom la yonent loolu leen ci ko daganalal keneen ku ne Xuseyma kenn ci saxaabaam yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangu na ab seedam dafa yow sa seede moom seedam ñaari góor ñooy xam loolu dafa continuer nekk àgg boo xam dafa aju ci Xuseyma ba ni fi Xuseyma génne am am na sax euh, benn aaya boo xam ne Xuseyma bi ñu dajale alxuraan moo ko indi te booba bala ñoo bind aaya bi fa mu am seere moom amul woon tuub ko seere jataay ba waaye ñu daal di fàttali yi ñu jëm dinaa salaatu salaam waxoon ñu ne ko yow sa sa seere ñaari seere ñu daal di nangu loolu ni ki noonu saxaaba boobu ñuy wax Abi Burda moom dafa masoon a tabaskee euh, maanaam euh, bëy wax la ne matul matul maanaam amul atu tabaski amul weeri tabaski parce que bu dee bëy ci gën a wér mooy war naa am weer at war naa am fukki weer ak ñaar pour matum tabaski moom nag amul woon doole ndeysaan yore bëy woo xam ne daanaka ñeenti ñeenti weer jëm juróomi weer la am yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu rey ko beneen la matum tabaski waaye nag ñu ci matum tabaski kon loolu tam nekk la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko defal koor kon daal buntu boobu muy buntu xasaayis nabi sallallahu alayhi wasallam moom tam buntu la boo xam ne kuy sàkku xam-xam war ko koo jàng war nga xam ne nga xam ne moom la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga yow ak yaa nga xam ne kenn war ko roy ci moom ndax buntu boobu sax kuréel mën nga cee jaxase ba euh, tàbbi ci ci buntu boo xam ne wala tàbbi ci ci mbir xam ne du nekk loo xam ñetteelu xaaj bi nag mooy li xam ne moo ci ëpp solo muy al afaalu taabudiyya ñun li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo def ca jaamu yàlla tax mu def ko ndax moom diine la loolu nag bu mu waxee buntu roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii lay gën a feese fii lay gën a feeñee tam ndax lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo def te nekkuloon loo xam ne nekkuloon ci ñaari bunt yi tudd bu boobaa leen ci ci la tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ko mooy tashriix mooy nekk ne day nekk. lu mu war a def aw xeetam tam war koo def att bi nag mën naa wuute mën naa nekk farata mën naa nekk lu mu sopp mën naa nekk lu dagal mën naa nekk tam loo xam ne lu sib la lu war koo bàyyi ci nit ñu ko sib wala mu nekk sax loo xam ne lu xaraam la comme ni nga ko xamee ci juróomi xeeti at yooyu di al ahkam ak taklif yi kon loolu mooy cosaanu buntu bii mooy bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkee royukaay ci xeet yëpp ba tax yàlla wax ko ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon Euh, loolu euh, wuti la boo xam ne bu yaatu la buñ ci bëggee joxe misaal rek julli julli ci jëf yi yonent bi alayhi salaatu daan def la jubli ci jaam yàlla ni ki noonu koor ni ki noonu euh, sarxe ni ki noonu aj màkka ni ki noonu julli guddi ni ki noonu julleeb néew wala siyaara ay bàmmeel yooyu yëpp ay jaamu yàlla la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu ko daan def ngir jaamoo ko yàlla kon loolu bala ko jullite def war naa jàng na ko yonent bi alayhi jàngalee xam na ko doon defee ngir mu mën a dëppoo Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci buntu boobu ndax mu mën a tàbbi ci li nga xam ne mooy bidaa yàlla na ci yàlla mos ndaxte kat tënku ci sunna ak jëf yu néew moo gën nga tënk sa bopp ci bidaa donte la ngay def bëri na lool ndaxte lu euh, bidaa baaxul bidaa nit ki day def ne mi ngi def lu baax ba noppi yàlla subhanahu wa taala nangu ko boole ko nag mu am ca bàkkaar sax boo moytuwul kon yàlla na yàlla mos ci bidaa tomb euh, bi nga xam ne ci lay mën naa ne ci lay mujjee mooy ay règles yoo xam ne dañ koy joxe maanaam ay nattukaay ci bu fekkee bëgg na noo xam ndax ñun ñu ngi roy yonent bi alayhi salaatu wa salaam wala wala nattuwaay yooyu li ci njëkk mooy ñu xam ne mbokk yi mag na diine islam ala al wahyi wa naqli sahih lal aql wal islam jullit dafa war a xam ne diine ci yàlla nee na yonent bi nee na ci loo xam ne ci xel bu neex ci lañ xamee wala ci seetantalal sa bopp ci loo xam ne doo ko teg ci alquran wala nga teg ko ci wax yonent bi alayhi moo tax ab jullit fi mu war a déparé ci diineem mooy lépp lu muy def rek da cee war a ndax nii da ko yàlla subhanahu wa taala ci téeréem wala nii ngi la koy yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci sunnaam bu ko defee mu doog koo nangu jëfal waaye lépp loo xam dañ ko wax mu ne leen ana dalilam ci alquran wala ana dalilam ci sunna ñu koy wax leneen bu fekkee ab jullit la moom a wax daa war a wax ne lii euh, engagé wu parce que li ma mooy li yàlla wax ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax moo tax asalaf loolu nag tekkiwul ne duñ jëriñu ci téere yi borom xam-xam borom xam borom xam-xam yi ñoo leeral li namm na mu yàlla ak namm na mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag borom xam-xam yi nga xam ne ñoom itam dañuy dellu ci ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi nga xam ñoo jaay jële woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu leen tudd ci borom xam-xam waaye ku nekk Euh, moo yelloo tur woowu moo tax euh, az-Zuhri ak imaam az-Zuhri kenn ci borom xam-xam yu mag yi ñu jàngee ci saxaaba yi daan wax naan min allahi risala wa ala rasuli lbalaa wa alayhi taslim yàlla moo wàcce ab leetaram yonente bi alayhi salaatu wasalaam jokkale ko jottali ko xeet bi ñun nag li ñu ci war mooy ñu jëfe loolu yam ca bañ cee dolli leneen ndaxte defe naa ne sunna li yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale lépp ci ay jaam yàlla kenn mënu ko jeexal boo xoolee programme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu jiitu fajar ba keroog waxtu bi dee siwaat ku la ko bëggoon a teg ne leen nañ ko def mënu ko jeexal naka ngay jëlee leneen ko di ci doole loo xam ne bokku ci la jàngale te leneen loo jël rek am na loo bàyyi ci la nga xam ne ko borom xam-xam yi doon waxee koo xam ne dund nga bi bi daale xamal ne am na sunna boo rey loolu loolu dina dina am ñaareelu règle bi nga xam ne war nañ ko jëriñoo ci bunt bi mooy ne yajibu ala al muslim al bahth an al hukm shar'i wa tathabbut fi fihi qabla yaani al amal fi jami' shughuli ab julit bu fekkee dafa bëgg a def jaamu yàlla na njëkk a laaj tegtalu jaamu yàlla boobu muy def ak naka yooyu ñu ngi alayhi salaatu wasalaam defe woon ba noppi bu demee ba am ba mu wóor ko ne loolu lu wér la lu am dalil la ko defee mu doog koy def wala bu bu deful loolu rek mën naa tàbbi ci buntu bi daa ba tey moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa warad képp ku jëf-jëf joo xam ne dëppoowut ak li nga xam ne moom laa jàngale da nga koy delloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax itam ne man ahdasa fi amrina haada maa laysa minhu fa huwa rad képp koo xam ne sos nga ci suñu mbir mi lu ci bokkul dañ la koy delloo yàlla na ko nangu subhaanahu ñetteelu reydel bi mooy ñu xam ne topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy nga def lépp loo xam ne digle na ko bàyyi lépp loo xam ne tere na moo xam loolu ci alquran karim la nekk wax ci wax yonent a jëfe ko moom ñoom ñoo tolloo manzila ci war a jëfe alquran ak sunna li nga xam ne moo nekk faratu ci alquran ak yu nekk ci faratu ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ñu xam ne lépp loo xam ne yàlla wax na ko wala yëpp ci alayhi salaatu wa salaam wax ko bu boobaa loolu lu mu war a jëfe def te waruñ cee am dara loo xam ne du xel yàlla ñeenteelu règle bi mooy maa tarakahu nabi sallallahu alayhi wa sallam min jinsi al ibadat wa lam yafalahu maa wujudi al muqtadi li fi'lihi ala ahdihi sallallahu alayhi wa sallam fa fi'luhu bid'a lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo bàyyi ci xeeti jaamu yàlla yi ca mënoon koo def ca sabab yi taxoon yu yi tax yi nit di ko defee yi tax nit ñi di ko def amoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam defu ko kon ku ko def rek bu boobaa tàbbi nga ci biir bunt bi nag bunt la bu yaatu boo xam ne bu aajee settantal la bu aaji faxmu la bu aaji dégg la boo xam ne boo ko déggee ci ngay xamee ne ñi yu bëree bëri nit ñi def ci buntu bi daal lay dugg joxoon misaal rek masalan ci yu ci eh, cérémonie yi am léeg-léeg ci at bi ñu jël ci masalan guddi ñaar fi fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab wala guddi googu bi guddi fukk ak benn wala ñaar guddi ñaar ci weeru gàmm yooyu ay mbir la yoo xam ne ay événement la yoo amoon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu fekkoon diine la kon bu delsee yonent bi alayhi salaatu salaam waroon na ko def bu fekkee ak jaamu yàlla la bu fekkee ak jaamu yàlla waaye kenn moo mën a lim ñaata gàmmu moo am ci jamono yëpp xam nga kenn mënu ko lim waaye boo laajoon ñaata eh, aj moo am ñu limal la ko boo laajoon ñaata umra moo am ñoo amoon ñu limal la ko waaye ñaata gàmmu ñoo am ñaata laylatul sab'a wa ishriin ñoo amoon kenn mënu ko lim te teewul def bis bu fekkee bis yu war a jaamoo yàlla la xamee san na ko te itam bu dee sàkk tiyaaba rek ñoom ñëpp ko bëggoon ñoo ci gënoon xew sa bu fekkee kon loolu lépp amoon na ci taxul mu am mooy wan ne kon ci jéem a euh, ku jéem a def ci dëkku jaam ah, bu boobaa wute ngaa ñi nga xam ne moom la ñu daal salaatu salaam ci moo tax ak imam Malik daan wax naan lépp loo xam ne nekkul woon diine ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënti nekk diine juróom-benn régal bi mooy euh, ñu xam ne lépp loo xam ne du aajo woon loo xam ne diine la ci lu mën a jaamoo yàlla moo xam ci ponk diine yi la bokk wala ci furoor diine yi la bokk moo xam ci luy yëwnal adduna la bokk wala luy yëwnal alaxira wala lu aju ci jëflante yi doomu aadama yi wala lépp loo xam ne rek ab attale bu nit ki soxla woon ci kaw suuf rek yonente bi alayhi salaatu wasalaam leeral na ko nekk naa ko ci alquran karim ci texte yi leer nañu kon jullit bi soxlaa woo soxla la dolli leneen ci diineem ci fenn wala ci leneen ndax lépp mat na lépp suñu borom subhanahu wa taala wax na ko ci alquran karim lépp tam yonent bi alayhi salatu wasalaam leeral na ko ci sunna seen bi alayhi salatu wasalaam ci sunnaam alayhi salatu wasalaam borom xam nag xam ne tam eh, farañ fàtte ko ci seeni téere moo tax Salman al-Farisi yi dafa am kenn ci yow bu bëggoon a saboté ne ko waaye yéen de seen yonent bi jàngal na leen sax ba ni ngeen di duggee toilette ni ngeen di duggee ay wanag ban tànk yi jiite la ban tànk yi mujjee boo demee looy jëfandikoo normal yooyu yëpp sax yonent bi dañ ko jàngalaat te moom sabota la waaye xoolal Salman moom ni dégg laaj mu ne ko waaw yonent bi jàngal nañu naka la ñuy fan la ñuy jublu sax bu ñuy demoone wala ñuy saw tere na nañu bu ñuy demoone wala ñuy saw ñu jublu kanku wala ñu jëloon dina am wan ko ne ko kon ñun suñu diine ci daal lépp a man ndegam yëpp ci alayhi salaatu salaam jàngale na loolu waxante maa nag leneen du ko gën a rek mooy ne mbokk yi topp yonent bi alayhi salaatu salaam jëf bu nekk bu fekkee da ko bëgg a nag ba xam la boo xam ne bu dëppoog sunna la wala déet na nga ko ci juróom benn mbir yi bi ci njëkk mooy bu fekkee jëf la joo xam ne dafa war a am sabab jëf joo xam ne ju am sabab la nañ xool ba xam sabab boobu dëppoo naag sabab ba ba tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam defoon bu ñu woon misaal rek masala ci guddi ñaar fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab loolu sababam mooy laylatul la koy tuddee mooy guddi gi nga xam ne ci lañ ko ñaanal bi alayhi salaatu wasalaam tayib yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu ko da ba at ma delsee ndax defoon na ko sabab bi moom xam nañ ko xam nañ tam guddi ga bu fekkee wér na ne guddi googu ndax ba mu dese yéen di ko alayhi salaatu def na ndax ba mu dese waatee na ko ndax fukki at ak ñett yi nga xam ne moom la am yëpp def ko wala benn ndax fukki at yi mu amaat Madina def na ko wala benn yoon ndax ay saxaabaam def nañ ko kon bu fekkee sabab bi amoon na ci jamono yéen di ko alayhi salaatu wasalaam def ko bu fekkee bi boobu boobu moo continué waat am ku ko def bu boobaa dañ naan la ndegam yéen di ko alayhi salaatu wasalaam def ko woon ci sabab bi amoon doo kon boo ko defee dëppoo sunna bi ci bunti ko loolu am na tuwaay ñaareel na tuwaay bi mooy ñu xool jënsi mooy façon jaamu yàlla gii ndax façon bi nga xam ne moom la ko nit ñi defee dëppoo naa ba ko yéen ci baax salaatu wasalaam defoo loolu bu ci doon joxe misaal dañ koy joxe masal ci tabaski tabaski sunna la yenn borom xam-xam yi sax ne la ci ko dañ ciy roy yonent yàlla Ibrahim roy ceetu yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne moo déclaré sunnaam mm. waaye sunna soosu ci bahimatul an'am rek lañ ko seen li ñuy tuddee ba xëy na muy xar ak bëy ak gileem ak nag waaye bu nit di jëloon fas masalan ne moom laa bëgg a tabaski wala mu jël kéwél donte moo gën a cher ne moom laa bëgg a tabaski wala mu jël téeméeri ginaar ne moom laa bëgg a ndax boobaa dana wér du bi moo wuti kon même façon bi daf ci am solo il faut ñu dëppale ko nga xam ne moom ngeen di ñaan salatu salaam defoo ñetteelu nattukaay bi mooy alqadar bu fekkee jaam yàlla bi dafa am euh, ab quantité ab lim dañ ko war a dëppaleeg lim ba nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal jëfandikoo jaam yàlla boobu ci misaal loolu moom ay misaal dafa leer loolu bu ko misaalee ci lu mel ni julli julli fajar ñaata rakk la ñaar bu nit ki ne woon man julli fajar ci laay gën a sawar kon ñeent laa koy def bu boobaa nit dañ ko nangu duñ ko nangu ni ki noonu rakkaay yi bu fekkoon dañ cee dolli benn rukkoo wala sujjóot yi ñu jël ci benn sujjóot ndax dañ ko nangu kenn ko nangu boobaa nag wute na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggee loolu mbokk yi moo tax coow lu bëri am ci loolu ñuy wax salaat tasbih salaat tasbih ak julli la boo xam dafa am beneen façon wuuteeg julli bi nii ci xadis bi ci boppam li ëpp ci borom xam-xam wax ne wérul ñu wax ne kon julli bu kiimaane nii bu fekkoon li yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan def la kon dana am càllal bu wér boo xam ne am si saako comme ni ko salaatul xawf amee comme ni ko salaatu al kusuuf amee ak salaatul xusuuf waaye eh, loolu amu ci moo tax borom xam-xam yu bëri jàppee ne bidaa ñeenteelu règle bi mooy alkayfiya muy maanaam melokaan ba nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam defee eh, loolu ba tey bu ci fekkee dañ ci bëgg a joxe ci misaal yi leer yi mooy njàpp njàpp xam nañ fi mu war a tàmbalee fi mu war a yem bu fekkoon nit ñi dafa ñëw def contraire tàmbalee ci tànk yi teg ci bopp bi teg ci kanam ndax am njàpp wér na il faut que def ko ci façon bi li ci doon tam yëpp jaam yàlla noonu lañ ko war a defal noonu lañ ko war a tam nan la ci jëf ji leen ci jàll sant juróomeel bi bu fekkee jëf ji dafa am jamono dafa am zaman dañ ko war a tënk tam ca jamono ja ngeen di jàll salaatu salaam daan defe euh, ak euh, waxtu wa ak sax euh, heure bu fekkee dafa am heure misaal loolu mooy ku bëggoon a tabaski ci weeru rajab wala weeru barax wala weeru koor bu boobaa kañ ko doon tabaski wala ku bëggoon a woor weeru koor ci weeru sabat sawaal wala ci beneen weer boobu bu la neex nga tànn ko bu boobaa koor googu kenn ko nangu wala nga bëgg a taxaw gis arafaat ci beneen bis bu dul bisu juróom-ñeenteel bi ci weeru tabaski bu boobaa tamit kenn ko nangu ndax te da ngaa wuteeg yéen ci daal salaatu salaam te waxtu la juróom-benneelu nattukaay bi mooy ay makaan bu fekkee jaamu yàlla gi dañ koo tënk ci béréb kenn sañu ko def ci yoro yéen ci daal salaatu salaam di ko defee ci beneen béréb bu bokk te boo ko yéen ci daal salaatu misaal loolu l'ihtikaf jaam yàlla bu mag boo xam ne dañ koy def ci weeru koor waaye bu fekkee bi yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne kenn mënu ko def ci lu dul jàkk ko jagleel jàkk ndax lam li mu ihtikaf yonent bi alayhi salaatu salaam ñëpp gis ko def ci lu dul jàkk kon bu nit ki ihtikafoon ci biirum néegam ne damay ihtikaf kenn ko nangu lu tax ndax def ko ca makaan ba nga xam ne ca la ko war a def nit ki noonu tam tawaaf ak mbooleem xeeti jaam yàlla yi nga xam ne dañ ko tënk ci xalaas Euh, juróom-benneelu règle bi euh, juróom-ñaareelu règle bi mooy al aslu fi l ibadat binisba lil lil mukallaf at taabud wal imtisal duna al iltifati ila al xikami wal maani nit ki li nga xam ne moom la ko yàlla subhanahu wa taala digal te ay topp yàlla li ko ci war mooy mu jëfe ko ndegam dalil bi leer na dalil bi wér na ci alquran nekk ci alquran wala mu nekk ci sunna si wér bu boobaa li lañ ci war mooy nga jëfe ko waaye waroo xool lan moo tax yàlla subhanahu wa taala farataal lii wala lu tax yàlla subhanahu wa taala bi bu fekkee feeñ na baax na bu fekkee feeñul tam yow la war rek mooy nga def loolu nag dafa bëri ñu ci sonn lool rawatina su mbokk fuqahaa yi léeg bu mu tudd rek te fekk loolu ci sàtt moo tax Omar mu Xattaab ba mu ñëwee di foon xajam la sabab dafa ne ko man de xam naa ni aw xeer doom nga waxoon na jëriñoo loroo mënoo jëriñ su ma gisuloon tam yonent bi alayhi salaatu salaam dina fóon du daal di jeex ba am na ku ma si ñëw tam laaj ko ne ko waaw lu tax ñuy ñukk ñu ñëw ram yi ci euh, tawaaf rawatina ñetti njëkk yi te léegi lislaam am na doole te li taxoon ñu ko doon def comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam tudde woon mooy feeñal kàttan ndaxte yéefar boobu dañ leen a xawoon a xeeb yonent bi Omar euh, da ko ah ñun de duñ ko bàyyi ndax de noonu lañ ko doon defee ci yéen dimbali yéen bi alayhi salaatu wasalaam ba ni fi jógee te terewul ko kon noonu lañ koy continuer xam nga laaj bi mel noonu Omar da ko mos a laaj tam yonent bi ci gàttal julli yonent bi daf ko mos a laaj ne ko waaw lu tax ñuy gàttal julli te yàlla def na in xiftum ak ñaxte ne ko mën la dee kafaru bu fekkee da ngeen ragal yéefar yi not leen wala ñu fitnaan leen. yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko lii ak sarax bu leen yàlla sarax bu leen ko delloo kon mbokk yi xam xikma nekkul ne jaam yàlla boo xam ne fekkoon bi rek ma ko def waaye li la war mooy nga jëfee ko moo xam-xam ne est-ce que la ko boo nag loolu xayrun ala xayr wa nuurun ala nuur waaye boo xamul tam li la li la war mooy nga jëfe ko rek insha allah taala mbokk yi loolu la ci ay régal yoo xam ne euh, jullit war na koo xam mu xam ne dina ko dimbaliwaale ci topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu roy mu nekk ak yóbbal boo xam ne ci la ñu mën a natte jëf yi ba mën a xam ndax dëppoo naag sunu Sëriñ bi alayhi salaatu salaam wala ñàkk naa dëppoo moom li may tëjee waxtaan bi daal moom bunt bi bunt la bu am solo boo xam ne jullit ñi ko lu aajowoo nañ ko lool te itam li fee delluwaat ci bunt bi duñ mën a mel na nga xam ne ne saxaar yi meloon duñ mën a yeyoo tam li nga xam ne mooy li ñuy wax tam tiiru muy am doole a jiite waat ak bis ko du ko buntu bi ci la kuy raw ci diine ci gala ci gala lay waaye kuy delluwaat kuy dellu ginnaaw dem ci diine ci ci gala buntu la boo xam ne tam moo gën a sax seytaane maanaam eh, sërëxal ci nit wala tarxiisal ci nit moo gën a seytaane sax tarxiisal ko ci buntu mooy yàlla parce que nit ki bu yàlla mooy yàlla day yëg ne moom li ñuy def dëppoo teg diine dana yëg itam ne baaxul fu mu toll itam ñu ngi fas yéene génn ci mbir bi tuub bàyyi ko waaye ki nga xam def koo jàpp diine loolu pour mu bàyyi ko bu jafe lay doon ci moom bu fekkee kon tënkuwul ci li nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala wax tënkuwul ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam leen euh, wax bu boobaa mi ngi def mi ngi sànq bëri bëri ci dundam defe ne mi ngi ciy def tuyaaba fekk la ngay def tuyaaba yàlla na yàlla na ci loolu kon yàlla na yàlla subhanahu wa taala baaxee ban roy suñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam roy yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci lépp lu ñu fas roy ko ci lépp lu ñu jëf roy ko ci lépp lu ñu wax innahu waliyyu dhaalika wal qaadiru alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulilah ñu ngi sant docteur bu baax a baax.